gis ci xale yi nga xamante ni tamit ci TikTok bi ñi ngi liggéey di amal seen bopp di jaay waaye ñu si bëri dañuy wax ne xale yi dañuy def naka su dul noonu pour am li nga xamante bi da ngay gis sax ñi nga xamante ne dañuy génn sax que nee nañ ñoom li ñu am ñoo ko liggéeyal seen bopp mais yi nga xamante ne bi ñu ngi ñu ngi koy teg seen kaw. Euh, dëgg la xale yi nag Sénégal moom jigéen ñi dañoo bëri jom hmm. dañoo bëri jom. yàlla rek moo xam man du ma kenn yàlla mooy jugé mais xale yi dañoo bëri jom am na ci ñoo xam ne nag liggéeyuñu xëy ñu gontuñu dañuy jékki-jékki yor ay millions yoo xamante ne yàlla nag mooy maye mais nit lépp loo am rek. war na laa lew nga doon noobul doon fariste ba a ñee kenn parce que boo ñëwee kenn mooy indi ngay gis sa moroom am lii nga ni dama koy am par force mm-hmm. mais doole yamul yàlla moo bind te yamalewul mm-hmm. waaw yàlla moo bind te yamalewul di gën a ñaaxat xale yi nag mm-hmm. ci fulla bi ak jom ak personnalité li naan jom fulla ngor ku ko amul looy def ci Sénégal te léegi dëkk nit ñi góor ñi nekkul sénégalais sax dañoo saay-saay dañ lay gis ci réseaux sociaux yi xembem la finance la loo xam ne ñoom xembem bi rek a leen indi. yàlla nañ ci yàlla musal ndax réseaux sociaux daa garaaw de. na ay kaan bëri na ñi nga xamante ne réseaux sociaux moo leen waaw bëri na ñi nga xamante ne réseaux sociaux da leen ay yàq. parce que mooy comme suu rek ñoom su pame lu bon loolu. xale yi waruñu koo gis. te léegi xale yi lu ci gën a garaaw mooy ñëpp a yor téléphone. kon luy génn ci réseaux sociaux rek dafa war a baax. dafa war doon loo xam ne dañ koy roy. may ñaax nag suñu doomu Sénégal yi laa ko sañ a wax. damay ñëw ci li wax léegi lu am solo mooy léegi xale yi ñëpp yor téléphone est-ce que tamit parents yi waruñoo xool aussi âge bi nga xam te moom la ñu joxee xale yi téléphone xale yi léegi ñu yàqu ñëpp ci téléphone lañ yàqu. waaw surtout parents yi nag. Euh, da ngay yor sa doom mu war a jàng nga jël ko jox ko téléphone soo yoree sa doom mu war a jàng nga jël ko jox ko téléphone du concentré wu ci jàng bi waaw téléphone boobu nga ko jox mën na ko lor am bu daxul jëlal lu neex lii wàcceel sa loxo yi te nga jàng waaw sa euh, xale bi ngay jox téléphone mën na ci télécharger comme suu rek solange bu bees bu bon boobu ah parce que yow boo joxee sa doom téléphone mu jàngi ba wàcc dugg ci néegam war a jàng ay leçon mu jël téléphone bi di ci xool gis ci lu vulgaire loo xamante ne tey mën na yàq àddinaam parce que day dem di toppandoo loolu nga xamante ne baaxut santul yàlla waaw moo tax nag ñuy éviter ñu ñëpp ñu war a éviter di jox seen doom doomi ndaw yi ay téléphone mm-hmm. téléphone dafa doy waar mm-hmm. te TikTok bi dafa yàqu te léegi xale yi li ñu xam ci téléphone sax ñun mag ñi xamuñu ko mm-hmm. loolu daf ma jaaxal éviter leen seen doom yi di jàngeen jël téléphone yi di leen ko jox duñu concentré wu man gis naa benn solange xaw ma dañuy ka xawma muse bi dañu ko rester rek mu jug daa siif rek lëmbal waaw ci tiktok parce que tiktok bi mu topp la te war a saraxe kay travaux pratiques yam ca kaye ba <laughs> dañu ko loo rester rek mu jug lëmbal rëster rek mu jóg lëmbal parce que lëmbal la jàng école dëkk bi yëngu na ah na sara saraxe douzaine travaux pratiques mais asu sa conseil laa soxla parce que tey boo demee tribunal sëy tes tas bari na trop yow en tant que lawbe asu lawbe ndax buñ nee sëy buñ nee sëy buñ nee sëy xel day njëkk dem ci lawbe yi tey exactement lan lañ mën a def ba xale yi toog ci sëy Euh, xale yi dama leen di ñaax mhm. ñu gën a toog ci sëy jàpp seeni jëkkër mhm. parce que boo nee jëkkër góor ñëpp a bon mhm. loolu mun ta nekk am na ñu baax am na ñu bon te sëy jaamu yàlla la dama leen di ñaax ñu gën a jàpp seeni i jëkkër yi nekk ak seen i jëkkër yi complice te sëyu Sénégal dafa metti soo nekk ak sa jëkkër complice nag boo tëddee da ngay am esprit tranquille parce que nit ñi bugguñu couple bu neex Sénégal loolu la seeni rab di bañ mm-hmm. loolu lépp ci xeetu soxor la bokk bugguñu couple bu neex mais bu la yàlla mayee jëkkër ju baax bu la comprendre boo xamante ne sa complice ka bul tiit bul ragal waaw man de lii laa wax bu baax macha allah bu ma catu xufatun toofee toofee xufatun ah yaa salaamatallaahu aaw ñaara bu tëj bunt bi ràpp déet nag waatal. bu dee yaa ko créé non non bugguma yu vulgaire yooyu yow yaa ko créé taman eh, mais mais ubbil Mbacke Ndiaye moom ngi def def. ubbil ma yow eh asuloo bi ubin ba kan jaay ba nag mi tas dëkk ubin ba kan jaay waaw sama ménagère du ñëw duggaale tafa waaye yéen solange boobu yàlla nañ ci yàlla musal Ubil mbaar kanjaay loolu de ci sabar yi lañ ko daan wax Mom de moom lañ indi waat bi mom bi mom da ngay ubbi carrément xam nga ubbil mbaar kanjaay be nag ubbil mbaar mbaa ñi koy ubbi rek sol nañ baa saaliw kilifa nga de bàyyil ubbil mbarka njaay yooyu ci tiktok bi mais bi moom da ngay ubbi yàlla nañ ci yàlla musal moo tax man la dëkk bi yàqu na mhm. ku yor sa doom mhm. bu ko teel a jox téléphone ndax tiktok bi moom gars yi lu leen neex la ñuy dugal ku bëgg sa doom am éducation bu baax mhm. nga teg ko ci bon condition boo bon condoléation xam nga teg ko ci bon condoléation bu ko jox téléphone parce que boo ko joxee tamit ñoom li ñu xam ci informatique ci machine yi ñun xamuñu ko man sama téléphone bi xaw ma ne am na jeu benn xale dani ma tata abal ma rek génne ci jeu bu garaaw te man xaw ma fan la dugg kon moo war a technicien dafa technicien dafa avancé waxal yow nuñ koy wax. <laughs> lan ngay tëjee lan ngay tëjee technicien bi dafa avancé léegi waaw kay technicien bi dafa avancé. technicien bi avancé. waaw nañ arrêté li ñuy téléphone yi ñu jox seen doom yi parce que xale yi léegi dañoo dañoo naan di tëdd fu ne la ñuy dugg te ñoom ñoo ñu ci gën a xam ci technicien bu avancer bi. li may tëjee rek mooy yàlla na ñëpp am jàmm. yéen nag tam. waa Kër Saliou yi. sama xarit yéen yéen moom. dama ni man dama naan man xeetu journaliste yi set yu am hygiène yi. te yow ñoo la bëggal suñu bopp yow. da ngeen yéen da ngeen maa bëggal seen bopp. dañuy ñëw ci programme bàyyi ko ñëpp looloo am nag. fu ngeen ma fekk su ma ñëwee da ngeen di mel ni Paris Dakar ni ngeen di dawee day mel ni seen tànk yi dafa am rouleau. mais asu man xam lu ma jaaxal. ku fi xew rek xewi nga tey wax xewee nga ba tey lu sa secret. waaw man sama secret mooy du ma def loo xamante ne tey ku tàppe TikTok. wala nga gisaat ma xeeb ma man damay sóoraale ndax yàlla daf ma teral nit liñ naan yàlla mooy maye mais du nit. su ma duggee Espagne seeti numbe sama xel day dal parce que defuma lu bon ci TikTok bi ba kenn war maa mën a xeeb ma ni cëpp dem Turquie fekk fa ma Makumba dem Dubaï fekk fa Aïda Souka ànd mu xari caam paate xari jaxeer man loolu laay sooraale sénégalais yi ngay fekk ci dëkk yi waruñu laa gis benn yoon di la xeeb danga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam euh, kattan bu néew la wala manqué man yu wala euh, sax jafe-jafe yi euh, gaaw a daanu seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.